suñuy jaar-jaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam daanaa ne su ko xaari doon jar danaa ko am seen YouTube bu Ndiamé TV bësal na station bi ñu tàmbal foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour jërëjëf ni barkeele laa ilaha illallah kon aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi irrahmani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina wa mawlana muhammadin ibnu abdallah wa ala alihi wa sahbi wa xadimihi wa man tabiu bi ihsanihim ila yawmi din rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi santaat yàlla bu baax subhaanahu wa taala di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di njukkal ak a ñaanal gaay baax yi nga xam ne ci seenu jottali ci lan jotee lislaam gi di beral cant ak ngërëm Cheikh Moussa Cissé bi nga xam ne ci ab wooteem ci lañu àggee ci yalla ba man ca agarab jam di ñaan yalla suñu borom yokku ay leeram te tass ñu ci barkeem te di ñaanal njaboot gi mu fi bayyi mu njabootu saayir gi ak njabootu batin gi yépp yalla suñu borom tek ci ñoom loxo ar leen sam leen wattu leen ba ñu yobbu bi fa ko Cheikh Moussa bëggee woon suñu borom am na ko mën na ko ko def kon ñi ngi nuyu ñepp di leen di jiital ci nuyoo yi ak siyaar yi suñu xalifa muy Seydina Alioune Cissé di ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram di ñaan naal yim naal ci pay bii yàlla suñu borom kàttanal ko ba mu eggale ci sagoom te ñu ànd koog moom ñu ngi nuyu kilifa jataay bi di sëñ seet moom mi nga xam ne moo fi teew teewaayu kilifa gi di jël nuyoo yooyu di ko teg ci loxoom rek mu tasaare ñu ko ci mbooleem kuy nekk ci béréb bi di nuyu waa koñ bi yépp ak dëkkandoo yi di nuyu daara ixlaas bi nga xam ne ñoo taxawal bis bi ci njiitul Cheikh musa Joxaane Cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax di jël kàddu yu cant yi ak ngërëm yi yépp di ko teg ci sa loxo nga jàllale ñu ko ci mboolem waa daara ji di leen jaajëfal di len jaaraamal di len gàcce ngaalaamaal ci bis bi ndax wax deug yalla def ngeen yitte te def ngeen pas-pas ndax ku xol bis bi mu tombel nga ay at ci ginnaaw amna benen beneen xeetu buñ ko daan feete bu ak bi kon buñ demee tay ba bis bi bu jotee ñu dajaloo di sante yalla ak diko loolu damay wax ne wax dëgg yàlla yitte la kon nag ñi ngi lay ñaanal yow ak mbooleem ñi nga àndal ñëpp yàlla kattanal leen yàlla sàmmal leen boppam yàlla barkeel seen liggéey ci biir ak ci li ngeen di yéene lépp ci waat bi yàlla suñu borom defal leen lu kawe ak njort wax dëgg yàlla bég nañ bég nañ mbégte moo xam ne foo ko takk rek weesu na ko ndax tey ku gis fi jamono tool ak yàqu-yàqu yi dama xone kep ku fi kilifa rek tay tit nga ndax da ngay yar ki nga yar nga def ci mom ba pare su genné mbedd mi defaat ci lenen te du yem ci def gam ci def waaye day genné la nga ci defon ba pare defaat ci lenen lu wuté ak la nga ci def internet bi di yar télé bi di yar kon kenn ku nekk dama wax ne tay am nga sas bu reuy wajur bu teud do nelaw sa xel du dal kon ana lan mooy pexe waaye pexe pexe ba woon démb mooy pexe tey bii rekk mooy delluwaat ci yàlla ndax foofu mooy muccukaay bi léegi nag fan la ñuy delloo ci yàlla kenn ku nekk ñu ngi koy wax ci jàkka yi nañ leen tuub dellu ci yàlla kilifa diine yi ñin fi tudde ay kilifa yépp kenn ku ci nekk ñi ngi wax tuub dellu ci yàlla waaye lan mooy mbir mi dëgg-dëgg fan la jaar ba dellu ci yàlla muy question boo xam ne kenn ku waxati dañ dellu ci yàlla yàlla nañu laaj ko ban yoon la ñuy jaar pour dellu ci yàlla waaye solution bi dëgg-dëgg yitte gi dëgg-dëgg ki noppal jaam ñi tey ak ëllëg mooy Cheikh Moussa Cissé te loolu buñ ko waxee dinañ ko leeral ba mu leer ci noppu képp kuy dégg suñu kàddu ndax moom Cheikh Moussa bi mu ñëwee dafa def ay preuve am na ku ko wax léegi ndax defar ba defar jeex defar ndaw mooy li gën a jafe ndax ndaw deretam dafa tàng te lu mu gis da koy koppi ya yaakaar ne war na mën a mel noonee kon kookee defar ko lu jafe-jafe la waaye bi mu ñëwee moom ci ndaw ñi la jubali defar leen ban passé yàqu jébbal leen seen borom bàyyi leen ak seen borom ndax nit ki nga xam ne da koy rus ci mu ragal la nit ki nga xam ne da nga koy yar ngir mu rus la damaa ne bu la gisee amaana na nga bëgg mu mel mën na koo mel waaye bu la gisul nag ndax wayjur yi mën nañu nekk ak seen doom yi fu nekk déedéet loolu kenn képp moo ko mën muy yàlla te yàlla dafa maandu te yàkkamtiwut ci jaam moo tax Cheikh Moussa mi nga xam ne dalay defar ba nga paase yàqu mu dëkkee la yow kooku mooy kilifa loolee nag mooy li nga xam ne mooy solution dëgg-dëgg tey te loolu moo tax a jóg ab sëriñ te lii damay wax ne mooy cosaanu diine moo tax woote bii biñ koy tàllal fii lu nekk dégg nañ waaye dañoo xam ne lu mu yàgg-yàgg dëgg mooy mujj te lu la jaaxal rek nañ yónni yàgg ndax lu yàgg leer yonente bi salaay salaam keroog bi nga xam ne diine ji wàcc na ci moom mu koy woote ñam fa fekkoon lii lañ ko waxoon comme li ñu wax rek li ñu fekkoon suñu maam yi jàppoon ko ak suñu baay yi daal nañ ci jàpp ndekete du loolu yonente bi ña àndoon ak ñoom defar na leen ba ñoom ña fan jóge ku fa dellu ku dellu fa nga jóge woon yow yaa fay gën yaa fay doon njiit kon bu fekkee yonent bi da ne alxulama warasatul anbiya yi borom xam-xam ñooy doon yeneen yi kon yan borom xam-xam la te xam-xam dafa bëri waaye xam-xam ba biir sëñ Tuubaa koo leeral ndax dane alxilmu indal ulama yan xasibu li saahirin wa si siran kuti mu ne xam-xam ca xam yi ñaar la bii saahir la bii baatin te benn bu ci nekk wax na la ko tax a jóg ndax bu bii xam nan ko mooy jàpp ak julleeg woor ak yee ca aju naam lu baax la waaye nit a koy def ba pare wëlbatiku di def safaan kon koo baaxagul waaye xam-xamu baatin bi mooy ki nga xam ne moo toog ci sa ruu gi te saay ni defal na la ba nga set wecc yow doo ragalati waaye da ngay jomb nit nag li nga xam ne da nga ko jomb di wéttalikoo sa borom sañatoo def safaan kon xam-xam boobee mooy li manqué ci jamono te Cheikh Moussa ba muy door dafa ko waxoon mu ne oto yu ndaw yépp a ngi daw waaye oto bu mag bi moo paan oto bu mag bi nag mooy ban mooy nit ndax dama wax ne tey ci jamono loo fi gis rek nit moo mooy sangu loolu nit mooy kilifaak loolee waaye nit moom kan mooy kilifaam te fenn képp lay baaxee mooy dellu ci boroomam boobu yonent bi ba mu wootee lislaam nit ñi di ko gàndal ñii di ko weddi woote ba yàgg lool metti lool waaye ndaw ñi ànd ak moom mu jaralal leen loolee damay wax ne tey moo indi lislaam ji fii tey kon ñun ñi nga xam ne ay ndaw lan tey lam jaraloon saaba yi faaw mu jaral ñu ko ndax sëñ Tuubaa noonu la ko doon waxee mag ñi mu àndaloon na ngeen jël saaba yi xam ne ñooy seen baay ci diina baay nag kenn képp la bëgg mu gën ko mooy doomam kon ñun war nañoo mel melokaan bi nga xam ne war nañu dem ba gën saaba yi loole nag buñ ko waxee warul jaaxal kenn ndax ku ne xam na ne tey saayir bi dox na te saayir bi li muy dox dox baatin moo ko gën a dox ndax baatin na ko yenn fu saay toll baatin moo ko fa tollal yonent bi bi mu ñëwee ànd ak saaba diir bu yàgg di leen woo ci baatu laa ilaha illallah muy taw tawhidu ilahi mbooloo mu bari topp ko waaye gis nga saay su nekk jamono faaw ñuy segg segg bu ñëw nag la ca bokkut du ca bokk waaye la seel rek ay dem ci ko suñu borom xamal ne ko ñii ànd ak yow am na ñoo xam ne gëmuñu la ce la aaya bu wàcce isa jaakal munaafiquuna xaalu nasar na ko gars yi ànd ak yow ay naafeq ñi ngi ci yoo xam ne gëmuñu la gis nga keroog la yonent bi woote te suñu borom daf ne ko pour nga xam li ma lay wax ndax dëgg la woo leen ci jaayante nga xam ne bari na ñuy galgal tasawuf tey dañoo xamul rek tasawuf mooy baatinu lislaam keroog bi yonent bi wootee ci jaayante dama na ñu bari dañoo dellu ginnaaw te foofu sax dinaa fi taxaw tontu fi ñi nga xam ne dañuy weddi tasawuf ndax yonent bi bi mu ñëwee dafa woo gaay ci jaayante ñëw leen jaayante ñii ne ko ñun duñ jaayante ak nit ñii ne ko duñ topp nit mbooloo ma tas ay xaaj yu bëree bëri xaaj ba ca gën a néew ñoo ko topp aaya bu wàcc inna la sina yu bàyyi na ka innamaa yu bàyyi na laa yadulaa fooq ay diw gis nga jaayante googu moo di ak njébbal tey waaye gis nga jébbalu kenn du ko def ci nit ci yàlla lan koy def dëgg la wet weddi tey tasawu foofu lan teg seen tànk wax nañ dëgg jébbalu kenn du ko def ci nit ci yàlla lan koy def waaye fan la ñuy fekk yàlla pour jébbalu ci moom muy question boo xam ne maa ngi koy laaj képp koo xam ne yaa ngi wax ne jébbalu duñ ko def ci nit dëgg la ndax yàlla moo ñu wax ne wala tamutunna illaa wa antumul muslimun bu leen dee mukk fekk jébbalu leen yonent yàlla ibrahima sax loolu la waxoon loolu la ko yàlla waxoon yonent yàlla suleymaan loolu la ko yàlla waxoon mu ne aslamtu nafsi lillaay maa suleymaan balxiis nga xam ne lu ci bëri bëri alxuraan dafa ñëw di leeral jaayante googu wala tamutuna illaa wa antumul muslimun man aslama wajhu lillaay wa huwa muxsinun wa huwa muslimun lu bëree bëri alxuraan andi ko njébbal googu gaa yi nag ñëw teg foofu seen tànk ni kenn du jébbalu ci nit waaye gis nga aaya boobu li muy xat-xat yàlla dugal na fi yonent bi xam ne ñoom ñaar duñu benn duñu duñu ñaar waaye kenn la ndax dana ko inna la siina yu baayoonaka innama yubaayana allah yadullah fawqa aydihim na ko na nga xam ne ñiy jaayante ak yow jaayante wunoog yow yàlla man yàlla la ñuy jaayanteel ndax yadullah fawqa aydihim lo yàlla ne sama loxo moo féete kaw seen loxo kon gis nga saa su nekk kii taxaw di nungu njébbal doonatut moom ndax ca pays ba mu toog la mooy la Cheikh Moussa waxal pays booba ku fa toog wax ndax la ngay woote du sa mbirum bopp mbirum yàlla la muy jaayante kooku ngay jaayante nag du la yemale ci boppam waaye da la sarale yóbbu la ci sa borom foofee nag bu ngeen fa demee yéen ñaar yéen a fa yem képp waaye ki lay jële fii di la yóbbu ci yàlla booba doonatut moom waaye yàlla la loolee nekk mooy rogalaat ba egsi tey Serigne Touba Serigne Touba woote ko ndax nan xool li li mu woote moom Serigne Touba muy njébbal ginnaaw yonent bi tarixa yi li muy bëri bëri gis ñu kenn ko fi woote ak njébbal ndax njébbal dafa doon lu rëy sëñ Tuubaa bi mu ñëwee woote njébbal googu te lu jiitu loolu sax balaa may egg si bopp gis nga saaba yi jëf yi jëf yëpp li muy rëy rëy gis nga ngërëmul yàlla gis nga fan lan ko amee ca huday bi lan ko amee mooy ca keroog ba ñuy jaayante ak yonent bi aaya wàcc wax ko laxar radiyallaahu anil muminina is yu bàyyi noo ca taxta sajarati mu ne ko na nga xam ne yàlla gërëm na ñi nga xam ne ñoo ngi doon jaayante ak yow te xool xool saaba yi fi ñu jaar xare nan badar xare xunayn xare xandax ak yeneen ak yeneen lan lenn lu nekk ñu def ko waaye taxutoon ñu am ngërëmal yàlla kon njébbal li tax ñu ne duñ ko def ci nit ci yàlla lañ koy def nit ki saay su jébbaloo rek dafa war a am ngërëmal yàlla ndax définition jébbalu mooy ngërëmal yàlla waaye nag nit ñi tey dañoo dem ba gëlëm ngëlëm te jàpp leen ñu déllu wat ci li nga xam mo déssone ginnaw japp jàpp ne loolu moo war a muy sharia té nan xol sharia bi kañ la ko yonent bi wota l'islam bobu di dox di dox di dox di dox ba wat feñ ci loxol Serigne Touba Serigne Touba ñew wota njébbal waye nan xol lu bok rek day niroo gis nga ba mu wootee ak njébbal la dalal yonent bi rek moko dal ndax bimu ñewé dane lawla alquran wa hadis wal manafiul wara maa bittu fii dunya laylatun laylatun waahida mu doon mu ne bu doon doon ak alquran ak hadis ak jëriñ mbindeef yi ngir yeesal l'islam te waxoon na ko bax de salaati la tasul bil aali wa sahbil udul wa biyee jadi di sabil bi laayi dan aw alami te na ko foo ko yonente bi tegoon fa la ko teg arfan bi arfi di jël ay nit di leen tarbiya di leen eggali ci seen borom gis nga liggéey boobu keroog bi ko sëñ Tuubaa jëlee tàllal ko ba mag bi mu fi jógee kenn na ko ekkatiwaat tey mu Cheikh Moussa Cissé ndax na ko yonent bi defee woon Serigne Touba defee ko noonu noonu la ko Cheikh Moussa defee nungu njébbal nit ñi ñëw di ko wuy si mu leen di eggale ci seen borom sànni leen ci pay bi nga xam ne dañuy jeex tàkk ci seen borom boo leen gisee ñuy dox wala ñuy wax da nga xam ne ñii du ñoom waaye am na kuy doxee ak kuy waxee ci ñoom te noonu la sahabatu rasul yi ànd nag yonent bi noonu la doxee woon mag ñi àndoon ak Serigne Touba foofee lan tegoon seen tànk tey ndaw ñi ànd ak Cheikh Moussa ñoom it kiif kiif du ñaar lenn lan lu bokk day nuroo kon fii la Cheikh Moussa teg tànkam woo jaam ñi ci yàlla doyit bu ñoqaliwaat lan andiwaat lu bees tàq mu di ak seex ndax ginnaaw Serigne Touba dégguñu ku ko waxee Cheikh musaa ñëw ne ku ma wuy si ma pare ci yow seexal la ba mu ko waxee jamono dañ ko doon song ndejoor ak càmmoñ waaye xam na ne lu mu yàgg-yàgg dëgg mooy mucc ndax kenn ku nekk ci ñun ñi tey bi nga waxee lii seen kër dañ laa génne wala dañ ne la bu ko fi waxati ngay jànkuwante ay tartar yu metti damay wax ne bi ñuy njëkk a woote bis bi fii ci buntu kër ñoom Cheikh Moussa damay wax ne metti woon na lool kenn ku nekk di wax waaye tey dëkkandoo yi ak mbokk yi kenn ku ci nekk xam na ni ñii dofuñu li yàlla waxoon yonent bi wama saahibukum bi mañ nun xam leen ne seen àndandoo bii du dof waaye dëgg ak njub la yor gis nga keroog bi nga xamante ni la mbokk suñu mbokk yi lu nekk dégg nañ ko wax yu nekk dañoo dof dañ leen a rékki dañ leen gëmloo sëriñ bu bees lu nekk ñu koy wax waaye damay wax ne yàgg mooy àtte tey ña doon wax loolu tey kenn ku ci nekk ku ci sa doom bokkutoon bëgg nga mu bokk ci ndax saay su nekk defe nañ ne ñun ay sëriñ ñaan ñaankat lan wala dañoo yor ay bagage chaque jour chaque jour dañuy ñëw naan ñaanaleel diw ngir mu jóge ca lam nekk kon xam nañ ne Cheikh Moussa fawut foluwut bi mu ñëwee am na ku ko wax sànq ay preuve la def jël ndaw ñi tàggat leen defar leen ban passé yàqu bàyyi fo bàyyi yàq bàyyi tooñ bàyyi ànd ku koy def koo gis ku gisu sa doom dalay leer na mi ngi ci cant wala daayira duñ la wër ndax li Cheikh Moussa def ci ñun moo tax ñu jomba def yenn yi déedéet yàlla képp mooy suñu borom waaye mooy suñu wéttal ci li feeñ ak li nëbb ndax ku ne xam na ne Cheikh Moussa mii ay tubaab la jàng de Cheikh Alioune wax na ko léegi bu demee tey ba ay nit topp ko fonk ko loolu gëm ko yaakaar ko te ñi ci topp am na ñi ko topp am na ñoo xam ne dañoo jàng ba wàcc alxuraan kon lan lan ko toppee kon ndekete liy defar nit ki du araf yi ci téere bi araf yi baax na naam nan ko jàngal xale yi ñu jàng ko ba wattu ko waaye nan def ci ñoom dëgg ak njub te mooy xam-xam bi Cheikh Moussa woote ndax bu fekkoon araf yi kese la yàggu dara ci taarix dégg nañ fi pari benn imam boo xam ne tajwid yam doon tajwid ak nam doon jànge njàng mu leer na ak sàmmonteeg arte charrière nit ñépp ko nawoon te ndekete yoo borom ñaari tur la ci taarix fii ci Tumbuktu am na imam bu fi nekkoon boo xam ne ñépp ko nawoon muy jàngale alxuraan te fekk na moom jubluwut penku dugg néegu góor loolu liñ ci bëgg wax rek taxul ñoo jóg sax mais liñ ci bëgg a leer dañu bëgg xam ne araf yi naam baax na waaye duut ne mooy defar nit ki ndax bis bu set ñu dégg fi njombe goo xam ne sëriñ daara def na ko kon kooko leer ak alxuraan ak alxuraan dañoo bokkul Cheikh Moussa nag bi mu ñëwee leer ga la woote xam-xam bii mu woote nag xamal na ne nit ñi dina leen déranger ndax waxoon na ko ngeer gi sëriñ si làqutu woon seen taalibe gàjj naa ko ku ma jox sa bopp te bàyyi ma sa bopp dinaa la yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko kon xam-xam bii la Cheikh Moussa woote woote gi mu ko woote nag def ko ci ay ndaw ña ko doon weddi tey wallaay ñi ngi weddi waaye xam na ne ndekete lii rek mooy dëgg ñaari dëgg amut ñetti dëgg amut genn dëgg képp moo am fajug ajo ak murit yi daw araamut si beesu ko ku mën na ko def mbër fa yaasin lii la maam Moussa ko waxoon damay wax ne nit mën nga ko xool ba mu neex nga ne ko seexal naa la dëgg la waaye bi nga ko seexale est-ce que ndax seex na seex piir mooy ki nga xam ne day defaru ci biir ak ci biti du mooy yàlla ci li feeñ ak ci li nëbb xam yàlla egg ci yàlla mën caa eggaleb jaam lii moo di seex ku ne nag seexal na la te lii nekkut ci yow xamal ne dañ lay nax waaye Cheikh Moussa mii ku ko gis dox doxinam bii nga xam ne ñi fi seere ñëpp kenn ku ci nekk dangaa baax rek waaye loo ci xam xam nañ ci lu ko raw xam na ne loolee naam yarub waajur ci la ndax ay waajur yu baax macha allah la ko suñu borom jox waaye waajur yi ci seen bopp xam na ne am na lu ci dolleeku loo xam ne ñoom defuñu ko ci loolee nag liggéeyu boroom jamono la. borom jamono pire mooy ki nga xam ne moo mën a xàmmee ker ci guddi kookee mooy ki nga xam ne saay bu jëlee jàmm yi mooy li mag ñi doon wax sëñ Tuubaa fi ñu jëlee fi ñu jëmee ku gën saay su woowee jaam ñi ban ñëw day def ci ñoom lu gën la nekkoon ci ñoom da lay sa bopp defal sa diggante ak sa borom marale la ak sa borom loolee mooy li nga xam ne moo manqué tey ci jamono ndax bis yi am na beneen xeetu màggal bu ñu ko daan màggal bu dut bi daan nekk ci ay caaxaan te waajur yi dañu ci daan ànd ak ñun kon nag nit ki fa nga daan daj lu ne te dajewoo faak dara boo demee ba daj dara rek xamal ne am nga koo dajeel kin dajeel kenn kepp la mooy ki nga xam ne liggéeyam suñu borom moo nekk ci loxoom ngir mu ñëw war a dimbali jaam yi tey ak ëllëg doon donoy yonente bi ci saayir ak ci baatin doon donoy Serigne Touba ci saayir ak ci baatin te waxoon na ko ba muy door itam kon nag samay mbokk nan xam ne Cheikh Moussa mii njëriñ képp la leen andil waa koñ bii bu ñu xamoon li mu andi dëgg-dëgg leen ñëw wuy si ko topp ko ci li mu leen woo te xam ne seen njëriñ la waaye du njëriñam yéen ma ne borom jamono nag saay su ñëwee da koy mujjee jàppee sax ku woye di ndax dama ko wax góor yàlla yi bu daay daayira ne l'islam da leen wax mooy koo romb muy ekkati baatu laa ilaha illallah na nga ci ànd ak moom di ko ekkati boo ko mënul nga toog di ko déglu waaye nit ñi bu ñu rombee ak suñ kuréel bu xeebu bi dañuy jàppee ñu waye ni ñoo xam ne amuñu sax fu ñu jëm dëgg gis nga yërmande gi ngay làmbool ci jaam ñi moo tax ñu lay jàppee ku waye di jàppee la koo xam ne xel mi neexul waaye loolu mooy cosaanu lislaam képp ku ko mas a ekkati dégg kàddu gi waaye nag xam ki ngay liggéeyal ak ràññee ko moo tax doo tàyyi doo bañ ku la ree doo bañ ku la jéppi doo bañ ku la xas waaye yàgg moo leen di àtte diggante dëgg ak lu ko doon kenn ku ci nekk day liggéey waaye résultat moo leen di àtte ku mën a defar nit ba mu bàyyi yàq ak foo ak tooñ civilisé toog foo ko fekk kurusam la jàpp xolam di tooy mu amee ak boo amul moo yem ci moom ndax ki muy wéttalikoo la loole ku ko man def ko ci ay nit man nga jàngal nit ba mu jàng baax na naam waaye munoo ko assuré ak defaru de déedéet waaye Cheikh Moussa ku mu pare ci yow dama wax ne bu buñ la soññee rek ci defaru kon xamoo kan mooy Cheikh Moussa wala xamoo lim def ci yow kon nag samay mbokk nan gën a góorgóorluwaat te xam ne yéen bu diis lan ñu yéen yéen bu diis lan ñu yéen sangu ndooy daf ci doon wax ne xam-xam bii alali bag la jun teg ci loxoy gone gone yi mooy ñun ñii mu ne su ngeen dëggalee te am fulla ak fayda fu ngeen nekk man ñi fekk leen fu dëgg la ndax bu demee ba imaam yi tey di ñëw suñu bàyyi ya doon weddi démb ak bërki démb ak suñu yaay yi di ñëw kon nañ dox te dem te xam ne lañ jàppan ba mel nii buñ ko bàyyee te loolu rek la kon nañ gën a defaruwaat te xam ne Cheikh Moussa ci defaru la woote ñun ñooy ñi war a réparer jamono ndax tey xool jamono ji fi mu toll rek mag ñiy fo mag ñiy def safaan da ngay rus sax booy seetaan tele yi wala ngay déglu rajo yi wallaay azim te loolee tey kenn képp moo ci mën dara mooy Cheikh Moussa moo tax dana woon tàllal naa sama loxo gis nga loxoom boobee mu tàllal kenn ku ci nekk jàppal ne yow la mission ba mu yoroon di ko doxal faama wax na ko léegi mag la woon bu dem bëttale waaye takkoon ndiggam xam ne bu toogee dara du baax moo tax mu takkoon ndiggam tey ba ci jottaleem ak ci tàllalam ñun ci lan jotee ci dëgg-dëgg lislaam googu kon ngalawaay kenn ku ci nekk bëgg-bëggam boobee ak yéeneem googee mu amoon ci jaam ñi ngalawaay nan ko ko mottaleel yërmande gi mu amoon dem ba naan maa gën a tabe yàlla bu ma jaam ñépp nungu lan wax ci ay wax yu doy waar yoo xam ne yow boo toogee sa roq di ko déglu sax dangay xam ne kii amoon na yéene ci jaam ñi kon nag nan góorgóorlu ci loolu fexe koo tàllal ba fa mu ko bëggee woon wallahi azim te gis nga képp ku ci def yitte rek dala koy eggaleel ba mu egg yow nga desee sag bi ndax damay wax ne gindi nit yow soo gindee nit ba pare ci ngay xam ne nekkete yow doo ci dara waaye lépp moom ndax mën mënoon nga ko gindi ba pare mu ne li nga wax xamuma ci dara waaye li tax nga gindi ko li ngay wax bunt boo ubbi bu leer naññi ci moom ba balaa ngay dox moom mu wax la ci sax yow dala ciy gindi wax kon war nañu xam ne li yàlla waxoon yonente bi laataa di man ahbabta wala ki ne la yahdi man kon kenn du gindi nit waaye yàlla ci koppam moom mooy gindee kon nag nañ gën a góorgóorluwaat nañ gën a yokkaat suñu yitte ak suñu jaayante te xam ne Cheikh Moussa jamono jii nii ñoo ko gën a soxla te saay su nekk dañuy gën a gis soxla gi ko jamono soxla ngir lan fi jamono toll ci yàqu-yàqu ngir lan fi jamono toll ci ak suufe ngir lan ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon ngir ñu war mu wax dëgg soo toogee ci seen jataay sax dangay ruus wala ñom ñu waron jël so soññaat nit ñi ci ñu lu defaru seen digënté ak seen borom waye da ngay jël seug nit mo lay waxal ñaari baat ñi talal leen ñi ñaan tufli ñepp dem muy lu doy wa sëriñ bu démé ba jàngalatut digalatut tereetut defaratu nit dama wax na doonatu sëriñ leneen la té loolu mo fess del ci jamono ji nit ñi gis ko ba paré melni loolu dëgg ñu ci ak ñoom waye ngeer ga Cheikh Moussa Gadiol say su nekk day gëna jébé waaye kenn ku ci nekk jëlal sa ileer xam ne yow yaay ki ko war a yeesal gàjj googee kon nag sant nañ baax gërëm nañ wax dëgg yàlla kàddu yi sax naruñu woon guddal nii waaye mbégte mun am ci daara ji ak pas-pas gi fulla gi ak fayda gi rek moo ñu branché ba tax sax wax dëgg yàlla kàddu yi ñu wàcce ko fi kon nag ñi ngi sant bu baax a baax di gërëm sa Moussa yàlla yàlla barkeel sa liggéey barkeel njaboot gi yëpp yàlla suñu boroom kàttanal la ba liggéey bi yéene gi nga ci am mu defal la ci lu kawe ak njort yow ak ñi nga àndal ñëpp suñu xol sedd na yàlla yàlla barkeel yàlla na ko fekkee ay déwén yu baree baree bare barke borom daaru jërë ngeen jëf. suñuy jaar jaar daal dañu nekkoon daal dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam. dana wax ne su ko xari doon jar dana ko am. abonné wu ci seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.